tey jii waruñu leen a may sax suñuy camp lu nuy ratee na xale yi football gàttandu bal bi ci digg terrain bi di ko teg muy dellu ñu wuti camp wu bu ñu may bal bi suñu camp non non parce que ay ndaw lañu ay ndaw lañu am te ndaw mooy mujj àdduna kon ndaw ñi maa ngi ñaan yal na yàlla ànd ak na mu àndee woon ak yéen ñun ñu ne fi leen seete yal na yàlla ànd ak ñun ndax man xam naa man ndam rek moo may arrangé ma <laughs> koy bëgg nag maa ngi bëgg daal yàlla boo leen sonn yàlla boo leen blessé yàlla boo leen sonn yàlla boo leen jaaxle te yàlla ngeen ko am mm-hmm. te am ndam. Mm-hmm. maman dañoo dugg ci kër gi fekk fii saraxu pom ak pomiteer te bu njëkk ba da nga ne woon ah, saraxu coupe ñu mën a wax waaw man saraxe naa sax miche wi <laughs> ah fekkuleen ma fi ma defar miche defar samay niche loolu TikTok ak ñëpp jot nañ ci mi ci TikTok bi ku mhm. tàppe sama TikTok di nga ko gis man saraxe naa miche saraxe naa couscous saraxe naa laax li nga xam ne nit ñi ñoo ko war a def mhm. loolu bu jotee dama koy partager mais bu dee li nga xam ne man maa ko war a tàmbali mhm. man maay def démarration tàmbali ku mën def ku mënul def dinaa ci génn lim boo xam ne génn wàllu sénégalais yi génn wàllu population bi yëpp dinaa leen génn waaleel alors dañoo gis ah ndel yi génn commencé ko waxtu moment lan moo waral choix bi nga andiwaat ko mag pomme de ndel ndel bi dama ne Aliou Cissé président Macky képp koo xam ne yaa ngi ci nguur gi te bu coupe bi jotee yow lañ koy njëkk jox nga ne wóoy kooku daa war a ndelu ndel pour coupe la mais pour nii match yi ba may yegg final ma yegg final ku watuwul dinaa la xëcc ba nga toog samay rasoir laay jël jël samay militaire wàcce leen ci dëkk bi ñëpp toog watu watu falaa force la da ngay wattu ci bi mu lay neex mbaa nga wattu ci bi mu lay naqari nii nag changé naa ko parce que dafa bëri polémique mm. te wax ji bari na te yeggaguma ca sarax yi nga xam ne moo waral dëkk bi yëngu mm. nga xam ne dañ koy sarax muy pom ji laax ji orange li nga xam ne lépp bokk na ci sarax yoo xam ne man bu nu ma ko wanee mm. dinaa ko génne tey nag Angleterre la ñuy wane ma saraxe pomme de terre keroog Équatorial sarax naa ay <laughs> ah, ah, ah, man machine man gis nga man man damaa star man dama dama nekk nit boo xam ni man benn laa mhm. duma mun a doon deux du ma mun a nekk trois euh, ñun àdduna bi ñu nekk àddunay pays la mhm. pays la te pays day am deux day am trois day am mais ci maay man maay king des vaillantes mhm. la reine des vaillantes les vaillantes de peuple les mamans de tous les pays euh, maman des lions lépp laa man lépp tur woo xam ne buñ ko jagleel doomu aadama muy jigéen te rafet bu yóbbu tur woowu buñ ma ci xoolee nañ ma ci gis Mm-hmm. ajaratu mooy star bi mm. parce que tur la boo xam ni dañ ma ko dooleel dañ ma ko dooleel ci sama dund mu marqué ma mi beneen tur bi ëmb na tur yëpp mm-hmm. parce que taalibe sëriñ Saaliw laa aussi jullit laa aussi dama yaakaar yàlla te di ko ñaan te lépp lu may ñaan sunu borom laa koy ñaan aw ma sañ-sañu dugal benn kaa ci sama dund lu bokkul ci ñaan yàlla sama borom mu may ma dama koy ñaan parce que ñaan laay def dépasse ñaan laay doon client ñaan laay def ñi may yaakaar ñëpp ci ñaan laa leen di ñaanaan may gi ma yàlla di may nag moo tax ñëpp dabu si ma te sama xol la yàlla di may ndax man fanaanoo ma stress fanaanoo ma naqar yii ni jàmm laa fanaanoo ay mébét laa fanaanu ok mm-hmm. maman dem seetaanu confrontation bi man bañ a seetaan gisee Karamba ak Mara ak ak yenn seetkat yi nga xamante ne dugg nañ woote. waaw euh, kii bisu éviter na leen. confortation da ngaa ñamoon naa ko di man ñamoon naa confortation di mm-hmm. man ñamoon naa confortation da ngaa fàtte. Mm-hmm. ñamoon naa ko bëri woon naa fa. <laughs> bëri woon naa fa foofu may roi des arènes bi. Mm-hmm. naka nga koy waxante seen biir. soo bis la. rëkkal ma rëkk la. ñoom ñëpp da nga yaakaar du question buzz am nañ buzz. kenn ku ne. Mhm. noonu la ñun ay góor lañu xam nga man mii mhm. seen wootante boobu. Mhm. du ma ci saagaanteeg benn mbindeef ci àdduna. parce que man commentaire yi. ma bien ak non pour man ñëpp bien la nu wax ndax man bien rek laay def. moo du ma lire commentaire. yàlla seede na ni ñoom góor ñi buñ leen ba dajale woon ñoom ñëpp ci plateau dara du yëngu parce que ñoom ñëpp a bëggante liggéey bi mënul am ennemi parce que client ya Karamba di recevoir ku ku Kukuru Kanté la mhm. Kukuru Kanté amul yooyu client Kukuru ak i client am euh, ku Kukuru Kanté ak i client euh, mu tëddee Karamba ak i client am mhm. Mara ak i client mhm. kenn ku ne ak say client mhm. billaahi société bi bu ñu ko séddoo woon leen ñuy liggéey macha allah ku ne am nga sa staff ku ne am na ñu la ci bëgg ku ne am nga ñoo xam ne lu ñu leen mën ci àdduna wóoluwuñ la kii lañu wóolu kon ku ne mais confortation émission bu neex la Mm-hmm. mais maman euh, comme ni mu demee keroog nga génn joxe si score te ñoom ñëpp koo ci jàkkaarloo na la wax ne score ah, duñ ko joxe lan moo waral loolu ak wala la wala li nga xamante ni maanaam yaay moroom seen morom comme ni nga ko waxee wala lan. non man nag man damaa judduwaale jàngiwuma. damaa judduwaale. Uh-huh. xam nga rab bi ñu ñëwee ma fay fekk jinne yi bi ñu ñëw dañ ma fay fekk man ñoom ñëpp maa leen dalal bi ñu ñëwee jinne yi maa leen ne dem leen fii ngeen war a dëkk mm. man su may fanaan ci apéage bi. accident yi bu rukkut puujee man ci appayage bi lay fanaan. ci appayage te heure boobu ku ma ci wowoon ne la kaay fanaan nga xam sama yaay daf maa woo man sama yaay laa yóbbu hôpital doo ñëw. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga kuy liggéey mystiquement. Mhm. bu la yàlla mayut moo tax ma ne mbir mi mbiri yàlla la. dafa am waxtaan yoo xam boo xasee ba déglu. Mhm. yow mi yor noppi garmi waxtaan waratulaa jaaxal. yàlla mooy may mhm. mooy teg ay nattu tey fii may waxee yow nii lu waay xat-xat-xat dama xam ne tey damaa damaa wane lu tax micro yi yëpp ba ku yor sa micro sa xel dem na ci soxna Aida Saliou ndax maa wane sama bopp maa wax lii xew wax ko ci ñëpp ñëw seet si ma defee preuve doo kenn téléphone ñëpp lay soxla nga gis nga sëriñ ak ñaankat mm-hmm. ñaankat sax laay wax ku kuy ñaan yàlla yàlla di la may soo demee ba ñeme wootoo ñem dem nga ba ñeme woo nattu yàlla yi yow yaa ngi tiit parce que boo demee ba ne <laughs> démb dégg naa sama mbokku taalibe bi mu ne dañ koo jàpp waa sëriñ yow boo waree ñaanal équipe bi liñ ko def ñu sempi ko mhm. yow nooy xoolee bañ lay jàpp nga war a xam démb waxtaan bi mhm. dañ doon dañ doon waxtaan ak sénégalais yi mhm. pour pour pour waxtaan ak ñoom wane ne ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay liggéey bi amul noonoonte mais ñiy seetaan sax xam nañ ne Maram ñas buggul woon waxtaan démb mm-hmm. parce que sëriñ moo ma jàpp yax moo dugg sama put du ay wax ci koo xam ne yaa war a dimbali sénégalais yëpp ku yax masaan dugg ci putam wala muy waaj a dugg ci putam yow lay seet si kon yow yax bu duggee sa put ana hôpital bu naan kaa samp ma butéel mm-hmm. de hôpital bi ñuy fajee nit non dama ne hôpital man man li may wax tey mooy man Aida hmm. sama ngor gi may na ma lépp lu ma fekk ci sama liggéey bii dama naan yàlla faj ma hmm. damay xam ne yàlla moo ko teg parce man moom laay ñaan sama xol bi li ci nekk man xam naa ne ku pexe pour man doo si li may dun dun jigéen kuy jaay capable wala jaay fit wala ngay jaay sadik wala nga wala nga nga am am capable nga sama tekk gi ak sama yar bi ma yàlla jox ak sama noppi gii ak sama tekk gii ku mu tax a tax ba nga attaqué ma ci violence wala nga dem naan man ngay lukkutoo ko man ngay biteel yow balaa ngaa yëdd sa kër biteel bi day exploser dal ci sa kaw yàq la ku essayé na nga ñam ku bëgg a essayé rek suba damal nga ut loo ma def man yoruma sax rimeeru nappe man bu wax jotee damay wax bu jëf jotee jëfkat baa ngi tax ma lu tax damay tuut yàlla indi ma def ma bébé défaillante may màgg mu def ma disque défaillante may dox mu def ma jeeg défaillante ba def ma meex de défaillante ajaratu défaillante si nga tey boo nee centre de peuple sa xel day dem ci wàll ndax foo ko bett jox ko micro mën naa wat ne ñiy toog ñëpp kenn duma ko yóbbu boo ma yaxee ma sempi ko sànni ko dafa am yàlla ñoo xam ne tey boo demee ci ñaankat man nit dem nañ ci nit fay ko ñetti ñaankat yu bokkul ay ñaankatu yàlla yu mag yoo xam ne du ñu fayeeku sax nit ñu dem jox ko sama tur sëriñ bi damaa woo. yow barke Ahmadul Xaddim. nga woo ma téléphone ni ma déggal kii nee na yow lay yàq yow ku la yàq yàqu ndax yow xool bi nga am ak yéene bi nga am mais yàlla kon lan lay fayeete mm-hmm. jaamu leen ma ñu jaamu ko yéene leen li ngeen yéene seen bopp yéene ko jaam yi maa leen di protéger ci seen i jëf ci seeni jëf kon tey moom moo ñuy protéger moo ni àtte yàlla bu la matalee sa complet moom moo lay sàmmal boppam lu jóge rek jàppan yàlla la mais bu ko jiñ sa benn nawle kon mas tey bi xel ah man sama xel dal na ndax man saa yu ma xëy mas dama koy ñaan rabbana toog di ko xaar mu defee ndogalam te xam naa ndogalam yi bu dalee ci sama kaw dinaa kontaan mm-hmm. ndax ku lay may saa su ne gëm saa yu ñëwee da nga naan daf may may te maa ngi ko ñaan dama ko daan ñaanee li ma warit maa ngi koy def mooy sarax lu mucc ayib te jàpp naa ne tooñu ma sama borom ba war koo ñaan te du ma may wala bu dee tooñ naa ko te yëguma ko it mën na maa jéggal tey lii la pom pombateer Angleterre pombateer tey Angleterre dañ koy pombiteer piire ko hmm. waaw keroog équateur yaa écouteur laa saraxe woon ndax écouteurs yi boo ko waxee dañ koy def communique ma jënd sama écouteurs yu bari saraxe ko ndànk sama pompiteur bi it siiwul su ma paree léegi dinaa xam ne ma koy saraxee sama ñaari saaku la woon saraxe naa ko ba mu des desit bii ma paree léegi dinaa ko piiree man waaw mm-hmm. amoon nañ dëkk loolu di la dalal euh, euh, yàlla nga ma dalalaat ci kanam bu ñu fubalee ba pare ba ndam li ñëw nga dalalaat ma ñu xàqataay kottante def nii daal dem plateau